man du ma wax ak saxayaay seex dalay waxal nga naan seex sow neex sow seex sow seex dalay waxal neex sow waa Sénégal njaay jëme leen seetaan waaye xoola seex sow neex sow indi na lu bees sal waa Sénégal njaay jëme leen seetaan lu ko waral bilaay seex sow neex sow indi na lu bees waaye xoolal waa Sénégal njaay génn leen seetaan waaye mana seex saw neex soow indi na lu bees waa Sénégal njaay ah. génn leen seetaan bilay seex saw neex soow indi na lu bees eh, xoolal ya Sénégal njaay génn leen seetaan waaye mani seex jabay ñëw ne dafal ndànk rek waaw baatu bët jë jë jë demal ah waaw la foog doo doo ñëw. jaay man ñëw na ñëw na léegi wowal seet. man waxuma loolu de yow léegi ñun lan lan la ñuy def fii ñun. kan fi ñun lan lan fiy def ñun. kan. fii yow yaa ma yaa def ci place bi. c'est yow ma yow man moo la woo mu wax da da si place Cheikh. waaw. Sénégal le comparé lu neex waay wax lu neex waay wax. ya ya woote. yow yow yow waxoon ma ñu ya fii si Seex waxu suñu problème. yow tooguñu place ba ñu jaay eh, Baye Fall yooyu jëm kër sëñ ba soow ñu ya ba si yaa ngeen ma waruñoo dem ca palaasu Seex ma nit ma ya xalaat bi la na lan dem ñun ñëw ba fii nga bëgg a war naan may. yow xoola man bu ma de waaw. ñoom na sant mun a wéré. waaw loolu man man mi wolof. moom maa la gën a xam mi mii susu gënoo maa xam loolu ñu mën a wax tant mun a wele. déedéet déedéet man damaa man damaa tiit wala damaa jaaxal wala man man man est-ce que sax man la man la yow jabaay kii yow la. yow yow yow sax yow yow waxoo ma nan dem place Cheikh. ah yow man man moo la wax ñu dem si place Cheikh jabaay ka ma jël morceau bu xonq bi. morceau bu xonq bi yow yaa ma jox deux trois cent ma jël trois cent ñu boole ko jënd popule. pour ñu def lan. di nga ko xottee nga ma takkal ma ma après. nga y a dem palaasu seex. rek mu jeex kese. après ah. waaw bi ñëwee. yow jabaar yow nag yaa ngi yaa a bëgg mënu fen de. kan yow jabaar yow waxuloo man yow pour ñu ñu ñu ñu ñëw ñaaxutu. waaw léegi nag nañ ba fii ngay wax a man lan laa la indee fii jabaar sax yow moo créé ñaxtu bi yow yow moo créé. <laughs> ah man de wax dëgg yàlla te ku nekk ci un fa man lu dox di ñaxtu ne ku jaaxle man lu am ma man benn problème aw ko ci àdduna lumay ñaxtu gis nga yeen ivoirien yi ni ngeen nekk balen ko seen yef yi ñeen def yow am yow yow ivoirien bu nafiq nga yow du meuna yeen sax yow lay wax nafiq baaxul nit du meuna fen fen no nek ci wéru safar nan selal wér wi parce que ñagi bari wuñu motax suma waxe bawal bawal yi da nga mun fen nga nga ñu gën ñu ñu koj ma ci mbet bi yow leg yow jabaay yow da nga mun fen yow akula xam sax defé defé fen ah, a b c d man so jabaay man yow dama lay wax benn affaire man dama lay wol ba nga nooy nekk. yow waxoo dëgg waxoo dëgg billaahi waxoo dëgg yow ma tooma sax am xëy man naa la dóor duma ma nga tëdd. jabaay yow imbécile bi yow war ngaa taxaw fi naan danga may wan. ak sa diggante ak yàlla ku la yeewoon trois heures du matin mun la wax dangay ñëw dóor gendarme sa mu fay la xaalis di nga ma dóor. ba ba la ba ngay bëgg a dee kay. loolu soo ko waxee ma wax soo waxee ma wax loolu waxoo dëgg. soo ko waxee ma wax loolu waxoo dëgg. yow yow yow moo ma indi fi yow jabay léegi la a indi fi yow. yow yaa jox morso yi ñu takk. waaw nga ne mën a dem palaasu Cheikh. waaw parce que bu demee ñu wax ko Cheikh Cheikh la jantal mais ni mu nekkee ci dëkk bi. waaw du loolu loolu loolu. ah loolu moo nu fi. du loolu ma waaw wax loolu rek bu mu maa kan neneen la sax. Cheikh. waaw yow. Cheikh. voilà voilà booy Cheikh. ñëw na arrivage bi ñëw na Euh, meew bi ñëw na d'accord euh, meew bi macha allah léegi mën nga cee kii mën nga def commande ñu xool ñaar la si indi incha allah baax na waaw bu ñëw na waaw meew bu neex la léegi xaaral deux minutes ma waxtaan ak ñoom mooy sama ñag ivoirien bi quoi. ak euh, jabaay léegi xaaral ma ma ma xool ba xam. Ah. deux minutes rek nga may après nga waan ma. Ah, ok d' accord si kanam ñu déggante. allez merci bien ok ok sama gars yi na ngeen def. waaw yow kay yaa def lu kenn deful naka ça va. ça va bien. waaw ah, yéen maa ngi si kaw dégg seen coow li ngeen di coow. day day waxtaan rek day day waxtaan. ñun de bu ñu nee waxtaan Cheikh. Eh, eh, eh. dañuy mel ni kuy xuloo rek. waaw waaw waaw waaw. <laughs> xam nga loolu xam nga diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire la moom. waaw lu yàgg dëkk la. yow moom ñag yi ñag yi yóbbaale nañ la ba. Ah, lu may def da ngaa mel ni léegi ñag nag kii. ah léegi ah, si <laughs> si si meññ bi Côte d'Ivoire dama koy yóbbu. benn yoon laa fa mas a benn yoon. Mm-hmm. laa fa mas a dem. Mm-hmm. bi ma taajalee yàpp fas ci laa fare ci moom dafa jaawale woo yàpp ak acak yi. ah ah xam man de xaw ma ci dara. voilà voilà yàpp dafa jaawale yàpp. yàpp yàpp moom yàpp la rek bu ñoree rek yàpp la. toog rek sunum xel na ceew ma ne nan ñëw siyaar si la. dëgg la dëgg la dëgg la. ndeysaan noo toog rek. xel mi na ceew ndeysaan xel mi tàbbi ceew. dëgg la ma ne sawaay yi. nan daan yegg ci sawaay rek léegi wax ko loolu noonu. mooy li nga waxoon pour ma wax. déedéet yow yaa yow yaa ma fi indi. waaw moo ba pour pour propos mooy li nga waxoon pour ma wax ko. man mosuma laa wax dara de yow daay yoroo toog ma kan dem ca seex wax ko liñ ko liñ fi indi ñu dem yow itam kilifa kenn du ko def ni waaw moo tax moo tax yow comme yow yaa xalaatoon wax xalaat bi ma wax la soo ni nga xalaat baax na léegi wax ko rek benn yoon mu jeex wax ko rek loolu loolu du dara nit boo amee parce que patron du ñàkk li problème yu sayu du si ñàkk wax ko rek. wax ko jabaay lu xew ñàkk de moom dawul am caaxaan. déedéet déedéet man du ma man du ma am caaxaan. ñak buy fenn de fi la ko gis kan yaw nga nan kan man amul cheikh amul kenn boo ma dépassé rek ma dóor la ba nga teud dama lay wax rek ak sa digënté ay yalla yaw way yaw su la nit yewon quatre heures di matin mu wax la nga dalay fay pour nga dóor ma di nga <laughs> ma dóor ak sa digënté ay yalla <laughs> yow comprendre sax yow dal cheikh waw ñun ño tok place ba mhm. ñu tok ba ci yag mhm. salu sew li ñëw fa voilà voilà Cheikh Mbaye Cheikh la gentleman mhm. sonn nanu mhm. bërki dem bu man ak saa mii mhm. saa moom bu meree day sàqami ay xale teg ko xale tuutee teemu seex ko ay seex rek ci soow alaam booyul day des seex la gentleman mag ñu boole mooy sunu problème seex yéen da ñun sonn nanu tàyyi nanu dee nanu damm nanu li nu bëgg nag mooy boo ci jugut du baax ndax du ci njëg war ta xool saa misel mii ba mu nekk mu naan ko sa kanam gaa ngi mel ne aw rëkk. ah loolu war na ko wax. ma naan kii li muy wax ëpp na mu wàccat. xool tànk mi naan sa tànk yaa ngi mel ne ab sartu xam nga sartu day def ni day lom mhm. lii rafetul ah ci nit doomi nit ku yiw day wax li yëfi nit ku yiw mhm. di ñëw place ba di ruube di def lu ko saf di bindi ah mhm. ah vas-y waaw wax na dëgg ah si wax na dëgg bi mooy seex moom li mu def c'est pas normal waru ñëw di di di di di di làmb suñu mbàq bi wax foofu mm. ñun suñu mbàq dañuy naan soow bi mm. bu wax ni ñun càkkiri bi mm. si moom la ñu dundee mu ne xool na jabaay ba mu neexul mu ne si beñ yi li mu tàkk nii xanaa dooy naan ci soow bi ndax mu set ne koy wax day xool jabaay ba mu neexul mu ne kuttu lay nirool <laughs> loolu c'est pas normal te li ma si gën naqe mooy da koo bind moom même su xoolee jabaay mii mu gis ñaawaayam bi mu ne ko xanaa yow sa yaay bi mu la ëmbee koo guddi moo tax nga ñaaw ba pare su fekkoon foofu la yem garaaw mais da koy bind kon nag moom mu ngi def lu ñu nakari ñu ñëw nag loolu moo war a tey ñaxtu bi si débat wax na ma kaa ñu dem ñu ñaxtu ko parce que kii li mu wax ëpp na. Mhm. ma ne ko nañu dem. Mhm. waaw loolu moo war suñu ñaxtu yi tey. Ah, baax na amul problème incha allah loolu moom dinaa ko gérer dinaa wax ak ñu bëgg nag nga jug ci. Mhm. man moom boo ci jugut. man ma démissionné man. non ëpp naa def. waaw man moom moom damay démissionné. man du ma démissionné. damay créer sama propre entreprise. ma tuddee ko Jean Michel Neex Ngalax. déet yow bala nga xanaa danga naan ñun ñun ñaar neex nga lax maa yow nga lax ba waaye yow donc neex nga lax affaire yi defe yaa yi mooy la dëggal tur boobu ñun ñaar neex nga lax hmm. ak Jean Michel neex nga lax Jean Michel neex nga lax loolu moo gën a raisonnable hmm. Jean Michel neex nga lax ah kon motax ngeen tak morsi ci xonx yi pour euh, pour ñaxtu non amul problème lolu mom inshallah dañ ko safra lolu dañ ko gérer ah, soobé problème bobu dootul amati inshallah dama bëgg euh, à partir de maintenant yeen ñaar ñeen jugo bok nday bok baye xam nga baña am ben réro seen diggante parce que ñi ay ay xarit ngeen mhm. ku ne xam na ne Sénégal ak Côte d'Ivoire ay xarit la kon nak yeen tamit wax deug yalla ay xarit ngeen ta place ba tamit wax deug yalla bu nit ñi xamé ni ngay xulo mhm. amna ko mu wo légui ni sax hmm. Euh, waaw am na ko mu doon woo léegi nee soow la bëgg dafa ñëw place ba fekku leen fekk ngeen dëj place bi ah, ñaxtu rek da dëgër bopp néewoon naa la bàyyi ma toog fi yow nga dem loolu tamit ah, xam nga rafetul a a xam a naa sax incha allah ngeen dindi seen yi parce que yi moom wax dëgg yàlla waaw kuy ñaxtu moom foo nga wane ne mer nga mais nag mën ngeen koo dindi seen yi ngeen koo dindi ah. seen seen rouge dent di ah, wane dinañ ko dindi mais ñaxtu bi xam waaw incha saafara loolu moom na seen xol sedd dinañ ko saafara saafara incha allah moom tamit dinaa gérer li ngeen wax ne dinañ ko gérer bu soobee yàlla kon na du am benn problème incha dina am sax loo xamante dinañ ko neexal si safar bi ñu ngi si mag bi incha allah surtout safar gi nag incha allah moom lu mat a bàyyi xel la. incha allah. ndax boo dee xool fi ne ñu ngi ci safar. dindi dindi sa morso yi. Mhm. yàlla dogal nag man ak Jean mi danoo créé woon daayira. Mhm. daayira sopp Cheikh Sow. ndeysaan mhm. am na sax ñu jot a adhéré foofa. waaw neex Sow waaw ah, daayira sopp Cheikh Sow neex mhm, Sow. ñu ngi ko fa doon créé ñun ñun ñun dañuy créé rek. ñu dañuy créé rek yëpp dañ koy wut. waaw daayira bi nag maanaam fondateur bi. bëggoon nañ daal soxla nañ daal lu toll ci deux cent mille. pour fond de caisse pour pour fond de caisse. <laughs> waaw d'accord loo xam ne jàppandee rek. incha allah incha allah problème. incha allah yéen a góorgóorlu leen rek. jërëjëf Ndikaay ñoo ngi si jërëjëf yàlla yàlla fi jàmm. waaw amiin amiin yàlla taw bi mu wàcc. amiin amiin yàlla yàlla nga am sax xaalis. amiin amiin yàlla nga am sax xaalis sax baax na yéen a ngi dellu ci liggéey ba. waaw ngeen góorgóorlu rek yàlla ko dem mag ngeen góorgóorlu waaw amiin. amiin amiin ngeen góorgóorlu rek. waaw waaw ngeen góorgóorlu bu baax. waaw ngeen góorgóorlu ngeen góorgóorlu bu baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf xew la xamal patron bi mu dem baa doole ku koy wër ba jàppale yéen Ivan yéen ay baa doole pire ngeen yow nan la ñu ñëw ba ci palaasu Cheikh Sow bi nga mer na da ngay créer Jean Michel Ndialla te kër man yow maa yow ñu bokk entreprise ba di liggéey Cheikh teg na fa yow yow yow yaa di xaj yow yow da ngay ñëw ba fii di war ah yow sa amul buma ma xool nga ne xaj gi ni ne ab Lagos. man man yow lay waxal. man may Lagos waaye man man man à part on se dit dans la main de donc maintenant. man à part on se dit maintenant. man di man bu boo defoon loolu di war. waaw ak ma mën a créer. looy créer. allah akubar man. waaw jabaay ruy. Eh, jabaay ruy. jabaay ruy yow yow da xam nga ne. waaw jigéen ñi fi ne nii ku ci am doom ruy ngay wut. waaw ruy te ruy bi ma ci defee tubaarkal damay sàcc ci soo meewum seex mi rek. di ci tàbbal di jox gaañ. yow yow yaay defe ñaar rek. jërëjëf ruy bu dog nañ dem. yow fexe ba duñ bokk oto bu ñu yëg. jërëjëf ku baax nañ dem. sa ñuulaay bi nga mel ci teg daw. waaye seex rek ci soow.